dëkk bi toll foo xam ne nag dañu soxla jëfkatu ñu baax ak waxkatu ñu rafet ñi nekk sama gannaaw loolu la ñu fi nekkee ak yenn taskatu xibaar yi pour delloo si xel yi pour delloo si sago yi pour delloo si muñ yi pour delloo si ngëm yi pour delloo si loo xam ni waruloon mukk teqalikoo ci ñun ci bépp jamono bu mën ci doon ndax réew mi mooy soxla ay ñoñam moo soxla toolu foo xam ni danaan a ah, ci góor ci jigéen ñan ngeen jàpp ne ñoo gën ci ñun am ñu yëkkati seen lox ñu laaj ñi ci ëpp bis sàngam na ngeen ñëw ngeen tànn ku ci nekk nag fa nga ñu jëmee na ñu ko wax ndax bu ñu tànn ñu xam lan moo tax ñu war a tànn mbir mi weesuwul loolu ngalawaay ku ci nekk ci ñun ak fa nga mënti bokk na nga xam ni réew mi moo ñu boole teyam ak ëllëgam te loolu bu weesoo te ñëpp di ko xaar nañu jàpp ne réew mi day sax di wéy na mu doon saxee ca jamono Njaajaan Njaay na mu doon saxee ca jamono Lat Joor na mu doon saxee ci jamono Alburi Njaay na mu doon saxee ci jamono maam Alaaji Malik na mu doon saxee ci jamono maam limamulaay di saxe ci jamono Cheikh Ahmad Bamba di ko jaxee ci jamono Serigne Karamba Souané ak yoonu yoonu yoon fu ci nekk fu mënti dem rek mag ñooñu bay nañu seen waar ba xëy wàcc ñuy way seeni kàddu ak seeni jëf kon nag ka gën ci ñun mooy ki gën ci réew mi te yéen ñi ñu tànn tey pour sargal leen kenn jeetuwu leen ci